asalaamaaleykum wa rahmatullahi alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh mbokk yi gis ngeen fii ci terrain préfecture li fi xaw di tournoi bu mag boobu nga xamante ni daara yi nekk ci Tivaouane yëpp ñoo ànd di ko def euh, def nañ ko nag ay at yu baree baree baree baree bëri ren nag ngeen gis dimension bi nga xamante ni moom la tournoi bi am tay ma ñëw fekk benn match boo xamante ni équipe bu Zawiya ba moo doon daje tey ak bu daara Ndaw euh, tey nag ñu fekk fi ki nga xamante ni mooy responsable di Vieux Kane Vieux euh, match yi lay demee waaw El Hadj naa la match yi ni muy demee mooy rek comme na mu daan demee at mu nañ koy organiser ci dal ak jàmm gannaaw ba ñu amee suñu ndigalu kilifa ba pare ñu organiser ko mu jaar yoon chaque année nam daan demee rek noonu lay demee ren. mais est-ce que si am ay tension par exemple ñu gagné benn équipe mu indi tension indi ay problème indi ay xeex affaire yi que loolu du ci am. jéeg am na ci mais daaw xëy na am na yoo xamante ni du tension mais ay euh, werante lay doon ba ñu dindi ko ren nag bi ñu defee suñu tirage. ba tànn équipe daara yi nga xam ne ñoo war a dugg yooyu dañu koo jël teg ci ay sanction yoo xamante ni bépp tension bu am ci équipe bi mu njëkk a jóge moom dañ koy sanctionné day ñàkk ba ñoom ñëpp ñoo d'accord ci. am na ñaata match ngeen defagum pour le moment. waaw tey suñu quatrième match hmm. waaw. actuellement kenn ku ne a. ci nekk di am trois match dem quart de finale football ko dem demi finale doog a àgg finale. ñaata participation la la la ñaata équipe ak ñaata daara yoo xam ñooy participer ci tournoi bi. waaw équipe bi dana bari mais douze lañ jël pour mën a am trois match trois trois poules parce que boo jëlee daara yëpp li nga bëgg ci tournoi bi doo ko am parce que dana dem ba après tabaski te tournoi bi li tax ñu initier ko Sidi Ahmed si bu Serigne euh, Babacar si. Mansour moom moo ko organisé woon bi mu demee ba nga xamante ni jotam mayetu ko mu jox ñu ko ñu jël ko ci suñu loxo ñu koy doxalal ba lépp luñ ciy def ba bi ñuy tirage jokkoo nañ ci ak moom mu wax ñu fi ñuy teg suñu tànk ñu teg ko fa ba tey defe naa ni teg yëguñ suñu tànk ci ndigal loolu. pour le moment nii jàpp ngeen date ba nga xamante ne date bi ngeen ko ndax li waral jàppaguñ ko mooy xam nga lañ ñu tàgge boo dégg am na jàppal diw te ku ni taalibe yi tournoi daara yi di nga xalaat Demba Diop si mi nga xam ne moo doon solal daara yi boobaak léegi nag maa ngi ciy ñaan moom rendez-vous pour ñu toog ci comme nañ ko defee woon daaw mais amaguñu ko moo tax dañu daal di commencé suñu compétition ba keroog ñuy toog ak moom ñu doog a xam ban date la ñu mën a fixé pour suñu datu final. bëgg daal mooy Demba Diop si mooy nekk parrain naturel bi chaque année moom mooy doon parrain. loolu itam euh, waxtaan naa ci kilifa gi muy Sidi Ahmed parce que bu ñu sañoon dañ koy yaatal ñëpp gis ci seen bopp ndax autorité yi ci Tivaouane yëpp ñoo moom daara yi waaye woon na ma na nga woo monsieur le maire ancien maire Diagne Sy Mbengue mu ñëw doon parrain ouverture woo nañu ko message nañ ko waaye jotuñoo tontu te itam dégluwuñu ko boobu nag ba ñu ko déggul ñu daal di ñëw rek daal di dem ci suñuy moyenu bopp. comment est-ce que autorités ñu ngi jàpp ci lii parce que lii boo ko dee xool li fi daje ci mbooloo kenn xamul lu mu toll est-ce que actuellement ni nit ñi xam nañ dimension bi nga xamante ni moom la tournoi bi am. nit ñi xam nañ ko parce que dimension ñu ta weesul daaw li ñu def fii Tivaouane amagu fi. final bi amoon ci stade bi Tivaouane amagu fi benn autorité nag la ñu gisagul daaw lañu ko gis ren gisaguñu ko muy Demba Diop si autorité yi ci des kenn ku ci nekk daan nañ la seeti mais dama jàpp ni euh, affaire yi da leen a soxalul moo tax ñun itam ñuy demee ci suñu moyenu bopp ndax chaque match gis nga arbitre yi fi nekk dañ leen di fay comme niñ leen di fayee ci euh, stade bi donc ñun tamit nañ leen di fay ci stade bi noonu lañ leen di fay donte jàpp nañ ci jàppale ñu wàññul ñu paiement yi ñu ngi koy def ci suñu moyenu bopp ñun taalibe yi ndax ñu ngi dajale li ñu am di fay arbitre di jënd suñuy ballon bal bu jënd ba tey jii dañoo mujj changé waat bal am na autorité yuñ ci jot a waxal ñu may ñu ay bal ñu ngi leen di déglu ñu may ñu leneen ak leneen lu mën a jàllale tournoi bi ñu ngi leen di déglu lii daal mooy loo xamante ni ku ñu ci mën a. est-ce que ñu ci seeti. pareeguñu nag pour seeti cent pour cent autorité yi parce que dañu bëgg a bàyyi ba quart de finale yi ñu doog a def li nga xam ne xam tamit suñu datu finale doog a dem seeti yenn autorités yi ku ci mel ni Cheikh Seck ancien gardien Sénégal wax nañ ci benn euh, la euh, année passée mais répondre uñu ren itam dinañ ko seetiwaat monsieur Ngalgou Ndiaye président ànd defar Tivaouane dañ koy seeti Diagne Simbe ngi itam dañuy dox suñu tànk dem ba këram jëm seeti ko waxtaan ci ak moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku ñu ci ku ñu ci tudd ku ñu ci répondre ñu ñëw tàllal la suñuy loxo nga ñëw ànd ak ñun jàppale ñu ci liggéey bi ku ñu ci falewul itam ah ñu toogaat rek suñu ruq ndax kaay ñu ànd ne tour tournoi bi tournoi bi nag li ko tax li ko tax a jóg mooy que ni daara yëpp bokk ndey bokk baay taaliba bu ne xamante ndax tey ji am na ku nekk ku dëkk Saalum ne daaray sëñ Bay am ku dëkk Saalum ne daaray Maodo Sow te xamante wuñu mais bu ñu dajee ci tournoi bi dañuy xamante ba bu ñu dajee seen dëkk ku ci nekk da nettali affaire yi yëre yi Jóob si joxe woon daaw ba gàm bi nit ñi dañ may woo ni ma ñu ngi koy sol te loolu tournoi bi moo fa yóbbu kon tournoi bi jàmm rek moo ko tax a jóg amul xeex amul xuloo amul dara maa ngi lay sant di la gërëm wasalaamaaleykum. jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu Alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV ci tournoi daara yi fii ci pleine préfecture final bi nag bu jotee dina ñëwaat wax leen bon jour la jërë ngeen